Pues

manam jëm ci walu LGBTI muy loi bo xamanteni tay tey dañ ko yóbboon fofu ci assemblée nationale ginnaw bañ ko yobé fofu sa assemblée nationale yaakaar naa ni loi boobu kenn mujj ko voter bala ñukoy voter sax irrecevabilité lañ ko ndax té loi bobu kenn recevable ko assemblée nationale recevoir ko néna loi bobu dal kenn du ko validé ginnaaw irrecevabilité loi criminalisation homosexuelle manam muy gor jigéen comme nuñ ko waxé woon rek ginnaaw président de la république tok na ci plateau international yëpp xamal ni que Sénégal kenn du fi nangu góor jigéen ndaxte suñu dëkk baaxewul noonu ndaxte même Sénégal su des pays laïque la nañu japp ni que musulman muy jullit yi d' ñu gor jigéen Yalla dafa sip gor jigéen dem na ba mu ne so xamé diw muy gor jigéen la mu leer la nga jox ko loxo juróom-ñaar euh, ñeen guddul lepp loma ci jaamu duma la ko may tay mën nañu né église bi di catholique bi d' ñu ci gor ñu ci lesbienne d' ñu ci ben acte bo xamanteni ni jëm na ci contre nature donc tay lan mo war a gàllankoor ba loi boobu kenn mënu ko voté fii ci assemblée nationale ba nga xamante ni képp koo xamante ni jàppati la wala ngay dox wala di wane wala di fétal loo xamante ni jëm na ci wàllu góor jigéen maanaam loi bi lay àtt di la daan maanaam ak loi criminelle ñoo mais gis nañu loi boobu bi mu ñëwee assemblée nationale c'est irrecevable jaaxal na sénégalais yi nag jaaxal na askan bi yëpp ndaxte bi ñu tegee loi criminalisée jëm ci walu viol yaakaar naa ni viol de moo gën a oyof kenn waxul ni viol baax na de ba léegi kenn waxul viol baax na waaye tey yaakaar naa ni moom nag viol bi na mu jàllee yaakaar naa ni loi criminalisant lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu homosexualité jëm ci wàllu góor jigéen acte contre nature loolu kenn waru ci woon laam-laame képp koo xamante ni député nga yaa ngi assemblée nationale waroo sukkandiku ci benn loi ba ngay naan loi bi validé na lii wala validé wul ndaxte loi boobu ngeen di wax dañ ko validé doomu aadama moo ko bind tey yàlla yàlla ñu sak mom ñu tim ñu waccé ñu c'est, Sénégal muy un pays laïque d'accord à 95% musulmans, à 5% peut-être chrétien amul ben tarixa ci ñaari diine yooyu boo xamante ne na lépp loo xamante ne jëm na ci wàllu góor jigéen amul benn euh, tarixa muy loi musulman muy euh, église bi koo xamante ne nangu na lesbianisme wala euh, bisexuel wala transsexuel je crois que sàmm jikko yi nitu dëgg ak ONG Jamra bañ ñu yëkkatee ak yenn société civile teg projet boobu ci kaw euh, bureau assemblée nationale si Moustapha Niass soulevé won ay polémique parce que ñu bari génnoon na ci xamal na leen ko loi bi dina jall ñi dina naan du jàll ñii di dina jall amon nañ ci jiixi jaxa amon nañ ci lam-lam ginnaw nak pour ñu criminaliser voix viol amul won ben jiixi jaxa lan mo waral lolu am jaxa jaaxa te gis nañu Pape Diop aussi euh, bu walu Sénégal Pape Diop momi taxaw na ne Sénégal pays islam pays laïque la donc loi boobu ñu ko fi euh, valider ki di Ahmed Khalifa Niass aussi mom jógoon na yëkkati ay cadre xam loi loi boobu ñu ko fi valider luko waral ndaxte dafa am ño xamanteni tay ay terroriste lañu manam ñom ño ñëw bëgg utiliser lolu pour tek lolu ba tay dañuy dem ci assemblée nationale nee la liste des députés qui ont voté contre la criminalisation de l'homosexuel ñom lañu dit que La proposition de loi visant à criminaliser l'homosexualité a été bloquée par le bureau de l'Assemblée nationale. Sur 19 membres du bureau, seuls 10 ont assisté à la réunion de ce mercredi et 9 ont voté contre ce texte. jàppale di ko fukki député ak juróom ñent ñoo waroon assiégé pour ñu saytu loi bobu nga xamanteni ni jëm na ci lepp lo xamanteni day criminaliser lepp lo xamanteni ni jëm na ci walu ñaari tur manam muy goor jigéen di lesbienne di transsexuel di acte contre nature jàppale ni ci fukki député ak juróom ñent yoyu fukki député donc ñom ñoo ci tew juróom ñent yi kenn ci ñom tewu ci te ci fukk yooyu teew jàppaleen ni que juróom ñent ñep dañoo voter contre mënu ñu voter moo motax ñu ne loi bi c'est irrecevable kenn recevable ko fofu manam ginnaw loolu nak bu mu amé gis nañu ki di euh, Abdou mbaw moom aussi n'est que ci pencum ndaw rewmi momit amna ay pour xamal ni que lan tax loi Bobu, pay criminalisation de l'homosexualité Abdou explique le rejet de la proposition de loi Abdou Mbow xamal na sénégalais lutax ñu rejeter proposition de loi bobu ak nu mu mënta démé rek góor jigen yaakar na ni fi ci Sénégal amul kenn ku ko war nangu l'islam nangu ko dëkku Cheikh Ahmadou Bamba la dëkku mam limamou lay la dëkku Alaaji malik la dëkku bu maam Baye Niass la dëkku Cheikh bu Kunta la jeex dëkku Cheikh Sahnu Aydara la yaakar na ni dëkku yesu christa la évêque yi fi abbé nek fi kenn ci ñom d'accord ci mais Abdou Mbow ginnaw mom ci assemblée nationale la nek su ko ndikoo ni ci ay texte lo xamanteni ay doomu le bureau de l'Assemblée nationale a rejeté mercredi la proposition de loi portant criminalisation de l'homosexuel pour cause justifie Abdou Mbaye les six dispositions contenues dans l'édite proposition sont déjà prévues dans le code pénal six euh, points code pénal c'était le 22 décembre 2021 des organisations de la société civile, des religieux et des députés ont déposé une proposition de loi qui criminalise l'homosexualité au Sénégal. Mais la proposition a été purement et simplement rejetée par le bureau de l'Assemblée nationale. On a vu que les six dispositions contenues dans cette proposition de loi ne sont rien d'autre que des commentaires qui existent déjà dans le Code pénal sénégalais, a d'emblée déclaré euh, sur la RFM, le premier vice-président de l'Assemblée nationale de Ken Koudoul, Kidi position de Macky sur l'homosexuel Lollay Khamal. Abdoumbaou Migi précise également que le président de la République a plusieurs occasions particulièrement lors des rencontres avec des chefs de l'État étrangers, a eu une position claire, pertinente, qui engage tout le peuple sénégalais s'opposant à toute forme de dépénalisation ou de la légalisation de l'homosexualité, et de souligner que le bureau de l'Assemblée nationale, conformément aux prérogatives qui lui sont dévolues, a décidé de déclarer irrecevable cette proposition de loi. Le vice-président de l'Assemblée nationale Abdou Mbow jàpp ne que daal juróom-benni point yoy ñu indi pour dougal ko pour ñu criminaliser lolu ñom prévoir nañ ko déjà ci code pénal ndaxte xamal na ni que kii di président Macky Sall amul plateau bo xamanteni togu fa ci international xamal na leen que kenn du dépénaliser lepp lo xamanteni jëm na ci walu homosexualité fi ci Sénégal té mu neex leen duñ ko fi def mu naqadi leen kenn du ko daganal fi ci Sénégal té Sénégal baaxoo ñu xamu ñu lolu donc Abdou Mbow dal lolu la joxé mais ginnaw buñ ko rejeté tamit dit que le mouvement nitu dëgg ñoom it exprimé nañu seen désaccord Madame rejet du projet de la loi de criminalisant l'homosexuel le mouvement nitu dëgg exprime son désaccord tay le mouvement nitu deug mi ngi xamal impunion nationale ak internationale ci communiqué bi nga xamanteni ma ngi leen koy liiral seen désaccord ci bureau ci décision bi nga xamanteni bureau assemblée nationale jël nako alarba juromi fan ci weeru janvier atum 2022 manam ñi déclarer sen proposition bobu ñi indi won pour ñu voter ñi criminaliser lepp lo xamanteni jëm na ci walu goor jigéen ñom ñu rejeter ko ñi ngi xamal le président Moustapha Niass ak équipe am décision bi ñu rejeter par la loi populaire qui vise à criminaliser l'homosexualité au Sénégal en modifiant l'article 319 alinéa 3 du Code pénal. Ainsi, le mouvement Nitoudeg informe que ses députés se sont basés sur des faux pour bloquer ce projet appartenant à l'ensemble des sensibilisés qui existent dans ce pays donc dans le ni que lépp jëm na ci walu projet bi porté wul ci ay politiciens mais ci ay généraux ñom ñoko islamiques, porté ci ay association islamique ñom ñoko ci ay imam ñom ci ay syndicats ak société civile ñom ñoko porté 319 alinéa 3 du code pénal n'interdit plus l'homosexualité du fait que les Nations Unies ont supprimé depuis 1990 cette taxe de la liste des maladies en déclarant que toute personne a naturellement le droit de choisir librement son orientation sexuelle nitu dëgg étant membre fondateur du collectif Andesam sàmm nous réitérons encore les loo xamante engagement pour continuer combat et obtenir gain de cause nous nous sentons dans le devoir de combattre pour ne pas léguer cet héritage à nos enfants nous invitons aussi tous les Sénégalais sans exception à se mobiliser davantage pour le retour des valeurs socioculturelles et dans notre chère nation le Sénégal ñi ngi xamal daal ginnaaw bi ñu dit ci article 319 alinéa 3 Bobu. Madame Nations Unies depuis bu mu voté joxal ku nekk am librement choisir sexe bu mu jël mi ngi opinion nationale et internationale xamal na leen que proposition bu loi nous ñu def ñoom continuer un combat, combat danañu continuer un engagement cest de dañ parce loi bi ay politiciens ñoo ko du politiciens ay xalif généraux ñom ñoko tek ay euh, mouvement citoyen ñoko tek ay euh, imam ñom ñoko tek ay euh, syndicalistes ñom ñoko tek société civile ñom ñoko tek tay tey xam nañu ñu ngi perte suñu société yo suñu culture morale socio culturelle lu ko waral nak tay du dara du Euh, internet bi fu mu toll parce que amoon na ay jamono fii ci Sénégal yaakaar naa ni kenn xamul woon lan mooy droit euh, drapeau LGBTI kenn xamul woon ni que yi lii la takk mais gis nañu ñetti at yi ñu génn ñu ngi koy wax ci dëkk bi Sénégal yëpp di ko xam ñun dee judd nañu ba màgg ba toll lu ñu toll yàgg nañu dégg góor jigéen am na mais mosuñu xam ni que drapeau bi ñoom loolu lay mandargal mais peut-être xëy na benn système de communication la boo xamante ni xëy na ñoom ñoo ko pousse xam nañu Sénégal du ñu nangu. ñi légaliser lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu góor jigéen xam nañu loolu mënta nekk kenn mënu ko fi nangu fii ci Sénégal mu neex la duñ ko fi nangu mu naqadi duñ ko fi nangu ndaxte dafa am lu ñu baaxoo dafa am ay jikko yu ñu baaxoo su ñuy wootee nag baatu laa ilaha illallah sayidina muhammad rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ku ci nekk am ci tarixa bi nga jokku ñii daa jekku ci murid ñii jekku ci tijaan ñii jekku ci ñeseen ñii jekku ci laayeen ñii jekku ci xaadir donc ñoom xam nañu loolu du mësa am Sénégal est-ce que jëluñu beneen système boo xamante ni xëy na bëgg nañ ko sensibiliser nit ñi wax ko ba nga xamante ne xale yu ndaw yi dañ koy dégg di ko màggaale peut-être di ko tester nee naa leen jamono yi bi ñu toll jamono internet lañ toll on est au vingt et unième siècle c'est la révolution de la technologie am na ay jumtukaay yu bëri tey yi nga xamante ni am na tey ci société bi amul woon bu njëkk tey YouTube am na lépp loo xamante ni muy vidéo bu ñu bëgg a mën nañ ko def ci YouTube YouTube soo jëndee sa téléphone am na ci biir tey TikTok am na tey ay WhatsApp Snapchat am na tey da ngay dem ba ci TikTok bi da gis jigéen ak jigéen taxaw di def at contre nature ba pare xale yi di ko seetaan tey am na xale yu ndaw yoo xamante ne amaana mën nañ ko seetaan amuñu benn maturité mën nañu tëju seen néeg wala làqatu ñu ne dañ koy essayé te la ñuy essayé yooyu mën na doon vice ci ñoom

débat public télé yi di ko wax rajo yi wax grand place yi di je crois que il est temps que sénégalais comprendre ben jeu am na jeu boo xamante occidentaux yi am le lu ñu la koy infiltrer tey le nañu que mënta Sénégal amener nañ ñu fi est-ce que nekkuñu di utiliser ay société est-ce que nekkuñu di utiliser ay mouvement wala association ñu ne taxaw leen carrément seen Sénégal ngeen ne kenn du fi nangu góor mais l'importance ñun lu ñu bëgg waxu góor jigéen ngeen koy dégg xale yi di ko màggandoo ku nekk di poser question di naan lan mooy góor jigéen ak lan moo mais je crois que tey su dee xam Sénégal quand du fait légaliser lu jëm ci walu acte contre nature je crois que c'est peine perdue Ñukoy def débat sax ba nit ñi di ci sonn wala di en tout cas

قددلا ويا قويدين ويا قددلا